na nga ko jaamu mel ni yaa ngi koy gis soo ko gisul gëmal ne moom mu ngi lay gis loolu la borom bi fedd li fii mu ne mu ngi lay gis ba ngay sujuut ba ngay rukuur ba ngay sàbbaal mu ngi dégg di gis innahu naka moom borom bii nga xam ne ci moom nga war a jébbul wàkkilu ci moom huwa samiul alim mooy dégg di gis keneen ku dul moom dañ koy nettali keneen ku dul moom boo jébbuloo ci moom dañ koy nettali ah diw day nangam lay def diw day nangam ak nangam du gis du dégg te bu génnee aduna dañu ko koy wax waaye du ko yëg te munatu koo delloo si te bés penc amul benn sañ-sañ addu gannaaw addu borom bi subhanahu wa taala kon kii dañ kumpa jox ko say mbir ki fi dul joge jox ko say mbir ki dul jeexal jox ko say mbir ki dul gémmentu sàkkaa di nelew dénk ko say mbir kooku kenn munul foqar ñi ci moom munul sàcc ci moom kon kooku la doomu aadama di jox bakkanam amma keneen ku dul moom boo ko joxee sa bakkan it malakul mawti ñëw jël ko looloo taxoon borom bi subhana wa taala junju ne cey bu ngeen settantaloon ni kon da ngeen jaamu borom bi subhana wa taala wàkkerlu ci moom mu ne koo mun a jébbal sa bopp ak weñ bu këfoon ci moom la muy lekk munu koo nangu weñ la wax weñ muy lekk da day aw weñ am num ci këf mu ne munu koo nangu lu ne dina ko def ha kon du daw fa taalib wal matlub mu ne kon aka néew doole ki yaakaar ak ki ñu yaakaar mu ne ku gën a néew doole koo xam ne ab weñ bu këfoon dara munu ci dara ah kooku boo ko dénkee sab marchandise dina doy waar te bakkan kat moo gën a cher li doomu aadama dal di am kon bakkan boobu aar ko fu sell waaye dénku ko itam ku dëñ kumpate am sañ-sañ te mun a aar te kooku mooy allah waxaat ñu ci beneen aaya وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه borom bi subhanahu wa taala mu ne doo nekk ci benn situation doo nekk ci benn waxtu wa ma takunu fi sha'nin ci loo mun a ne moo xam ci njub la wala ci safaan ba ci jàmm la wala ci safaan ba ci lu feeñ la wala safaan ba ci luy bégte la wala safaan ba loo mun a ne mu ne itam wa ma tatlu minhu min quran te doo jàng benn aaya ci alquran te doo jàng benn xaraf ci quran te wa ma taamaluuna min amal te amul benn jëf koy mun a jëfi moo xam jëfu xol la mbaa jëfu cër waaye loo mun a jëf illa kunna alaykum shuhuda borom bi subhana wa taala lu dul rek maa ngi sëpp ci yéen di leen xool di leen gis te di dégg itam nag borom bi subhana wa taala loo mun a jëf te ci ñaar ñooñu nga mun a jëfee imma amalul qalb aw amalul jawaarih nga jëfee ak xol mooy li ngay xelaat walla nga jëfee ab cër bu dee ab xol bu dee lu baax bind nañu ci ngénelu borom subhana wa taala bu dee lu ñaaw xaar nañu ba nga jëf ko ñu bind boo jégguloo ñu bind tiyaam lu dul fi hududil xaram bu fekkee nag ci li wër kaabatu musharrafa borom subhana wa taala mu ne ku fa xelaat lu bon nu zibhu bi azabin alim foog ñu ñamal ko dugal lu métti lu dul foofu nag xelaat lu bon duñu bind lu bon boo ko jëfee nag ñu bind boo bàyyee ngir ragal borom bi subhana wa taala ñu bind yool moo tax mu ne lii yépp loo ci mun a def borom bi ne maa ngi leen sëpp di ko gis te maa ngi leen di xool de izutu fii duuna fii ba ngeen bàbbee koo jëm ca la ngeen jëm mu ne maa ngi lay xool de ba nga jógee jëm moo xam ci lu baax la moo xam safaan ba yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal xeet wi ne maa ngi koy gis de te maa ngi koy yëg te maa ngi leen di xool te yemuma ci itam kat maa ngi digle ñuy bind lu ñuy def te bés penc dinañu ko seede dinañu daje ak moom kon kii moo yeeyoo bàyyi xel moo yeeyoo dénk sa bopp moo yeeyoo def li mu digle moo yeeyoo bàyyi li mu tere ku mu mun a doon bu ndigalam safaanoo ak ndigalu borom bi ndigalam lañuy bàyyi defi ndigalu borom bi subhanahu wa taala moo tax kon ñu junjune laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq mu ne waruñoo topp mbindeef be mooy ki amal mbindeef kon mbindeef dañ koy topp bu la toppaloo ki ko amal amma safaan ba bu amee nga dal di ko bàyyi maandu ci ay biram amma dalil ci sunna gannaaw bam ñu joxee dalil ci qur'an ci ñetti xaaj yi al islaamu wal imaanu wal ixsaanu mu indil ñu yu nekk itam ay dalil yu koy dëgëral mu ne dalil yooyu mooy xadiisu jibril almashhur xadiis jibril bi nga xam ne bu siiw na ci bépp téerib sunna bu ubbi umar ibnu alxataab radiallahu anhu di ñu nekk li ne toog nañu ak yonent bi sal allahu alayhi wa sallam si tuut rek am ku yegg si ki yegg si nag moom yéere yamu sol weex na weexaay boo xam ne jéggi na dayo kawaram ba ñuul na ñuulaay boo xam ne jéggi na dayo te kenn xamu ko ci ñun waa madinatu munawwara ñi waroon yonent bi moom kenn xamu ko te gisuñ ci moom itam luy tegtal ne gan bu jóge fu sori la ndaxte yéere yamu sol ni ñu mel kawaram ga nu mu mel yaramam nu mu mel loolu wonewul ne kii gan bu jóge fu sori la ndaxte gan bu jóge fu sori fokk tukki bi jeexantal ci moom mu ne ah ñu dal di waaru nag ndaxte kii xamuñu ko mu ñëw jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw bi ci kanamam dal di sukk teg ay loxoom ci ay tànkam ne ko yow yonent bi axbirni an il islaam waxal ma lan mooy islaam ne ko islaam day mooy nga seede seede bu wér ne kenn yeyoowul jaamu kudul borom bi subhanahu wa taala te borom boobu moo yónni ki tudd muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nga saxal julli joxe asaka woor weeru koor dem makka ca kaaba ga benn yoon ci sa dund boo ko manee mu ne ko juróom yii day mooy islaam mu ne ko sadaqta ah mu ndax wax nga dëgg de umar ibnu xataab mu ne ñu gën a waar ki koy laaj di ko dëggalal mel ni daa xam la mu koy laaj mu ne ko axbirni an il iman mu ne damaa bëgg day nga waxal ma lan mooy iman mu ne ko iman mooy nga gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm bés pénc gëm ndogal bi lay bégal nag ak boo xam ne daf lay jox tiis ndax nit moom jullit moom du mer ci ndogal borom subhana wa taala dina am tiis nag mu ne ko juróom benn yii day ñooy imaan ku ko def day am na imaan mu ne ko wax nga dëgg de sadaqta omar bnu xataab radiallahu an waxaat la mu waxoon mu ne ko nag yow maanaa hadis bi kii de koo gàttal waaye hadis bi jàll na maanaa axbirni an issaa axbirni an issaa dina dellu si waat ci ixsaan mu ne ko wax ma itam bés penc kaña aw bés penc moom kaña akfa loolu nag moom mal masulu anha bi a'lama min as-sa'il loolu nag moom yow kii laaj kat ki ngay laaj tanewu la ci xaw ma de bés penc kaña mais tanewu ma la ci xaw ma loolu itam borom bi subhanahu wa taala feddli na ko ci alquran yasalunaka an issaati ayyaana mursaha mu ne ñu ngi laaj laaj bés penc kaña borom bi ne ko fiima anta min zikraha ila rabbika muntahaha mu ne waaw foo leen di jëlee dat bi ngi leen di wax bés penc nangam la xamuloo ndaxte loolu xam-xam borom bi la xamalu ko kenn kon doo ko xam waaye yow kay innama anta mundiru man yaxshaha waaye yow nag dangay xupp ku koy ragal dangay xuppaate bés penc ki koy ragal waaye nag ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha mu ne waaye nag bés bu ñu wolee bëfte bi dañu yaakaar ne afi suba rek lañ fi nekkoon wala afi ngoon ndax ay jafe-jafe yu ñuy gis kon yonent bi ne ko xawma bés bi ci kaña kon su fekkee ne yonent bi nañ ko laaj mu ne xawma ah kon sakantuma kudu rasul ko kay dangay def li imam malik waxoon rahimahullah mu ne nit buñ ko laajee mu ne xawma faqad afta mu ne tontu na nit ki buñ la laajee nga ne xawma mu ne tontu nga li bon ci nit luñ ma laaj ma wax mun ne foog ñu laaj la loo xam ala la budda kon rasul mu ngi nii laaj nañ ko mu ne xamul borom bi subhanahu wa taala mu ne doo ko xam nag ndaxte xamaluma la ko waaye nag mu ne ko axbir nii an amaratiha waaye waxal ma boog lan mooy màndargam bés penc lu ñuy gis ñu xam ne bés penc jege si na gannaaw xamoo bés bi kaña waaye waxal ñu màndarga yi ndax ñu mun a fogaru yonent bi ne ko an talida la amatu rabbataha mu ne aduna bu demee be ab jéebéer dal di jur sangam wala ab jigéen dal di jur sangam borom xam-xam yi nag dal di firi loolu ñu ne ci ñaari maana lay doon benn maana bi mooy dinañu dem ba islam ama doole dëgër di duma ab kéefér di jëli seeni njoboot ñu leen di jaay maanaa jaam jaam ñëwaat ñu leen di jaay ñuy bari be léeg-léeg ñu jaay ab jigéen ñu koy jaay di ko jaayaat di ko jaay di ko jaayaat ba doomam jëndaat ko ñu xam ne sax kooku mooy yaayam ñu ne loolu mooy maana an talida al amatu rabbataha ki ko jënd mooy sangam te soxna soosu moo ko juróon te xàmmeewu ko ndax li jaam bari ba ñu koy jëndaat di jaayaat muy toxu rek di toxu ñu ne loolu mooy maana ñeneen ñi ne déet am na beneen maana maana bi mooy aduna dina dem ba soppeeku yaay mooy takkaayu di liggéeyal doomam xam ne xale bu jigéen bi day toog fële dal di yar ay weebe mel ni cheytan dal di kulóor ak jëmmam nag yépp nag dal di toog lépp yaay ja raxas baag togg baag léeg-léeg sax da koy gëdd kon ñu ne loolu mooy maanaa an talida al amatu rabbataha bu dee loolu nag qad iqtarabat isaa bu dee loolu moom bés penc nañ ko fogaral ñëw na ndaxte loolu moom nekk na lu ñu gis ci aduna nekk na lu am kon ñaari maani yi lañu firee antali dal amatu rabbataha mooy benn màndarga mu ne ko ñaareel bi wa an tara alxufaata al uraata al aalata ri'aa alsha yatataawaluuna fi lbunyaan mu ne aa bi ci tegu di màndarga bés penc mooy boo demee ba gis borom tànki neen ya da nga xam ne dañu ñàkkoon ba amuñu ay dàll borom yaramu neen ya yoo xam ne daawuñu am sax lu ñu jëndee ay yére alaala ñu nekk ñu ñàkk ñu amul dara ria asha nga xam ne lañu doon yitte rek mooy sàmm ay dàll loolu dong moo nekkoon seen yitte mu ne jamono soppeeku nag ba yatataawaluuna fil bunia ñuy gënalante kooy ay étage boo ko gisee waajal de xamal ne bés penc ñëw na ndaxte ab soppeeku am na ndaxte bés penc balaa muy taxaw rek alal dina bari be kuñ ko jox dootu ko soxla ña ñàkkoon dal di amaat loolu la dal di dindi fii umar ibnul xataab radiallahu anhu dal di ne waaja dal di jóg dem falabisna ñu dal di toog noppi maliyan ab diir kenn waxul yonent bi dal di addu ne yaa umar atadri man issaa'il qultu allah wa rasuluhu alam mu ne ko waaw yow umar ndax xam nga ki doon laajte léegi léegi mu ne hee kii kay yàlla yonentam ñoo ko xam kii kay ñun xamuñu ko qala hada jibril ataakum yuallimukum amra dinikum mu ne kii day jibril la jibril alayhi salaam mu ne daa ñëwoon nag ngir xamal leen seeni diine ngir leerlu ñetti xaaj yi al islam al iman al ihsan bu njëkk bi di juróomi ponk muy jëfu biti ñaareel bi di juróomi ponk juróom benni ponk di jëfu xol jëfu biir benn bi nag jëfu biti bi ak biir bi nga lënkale ko rafetal ko te rafetal bi mooy al ixlaasu wal mutaabaa mooy dal di ko sellal dal di ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ponk yooyu ñooy yi mu doon junju ci hadis bi donte nag tëboon nañu lii nga xam ne mooy ihsaan mooy rafetal rafetal boobu mooy suñu dars bi wees ak bi tey rafetal boobu borom bi subhanahu wa taala da ciy ñaaxaate lool méngale rafetal boobu ak jëfam moom borom bi subhanahu wa taala bim la defal yow mu ne foofu ngay dal di peese sa rafetal li la borom bi subhanahu wa taala defal yow muy ñetti aaya yoo xam ne ku ko teg kanam dal di ko jëfee da nga xam dëgg-dëgg lan mooy rafetal benn aaya bi di wa ahsin kama ahsana allahu ilayka a rafetalal ni borom bi subhanahu wa taala rafetalee jëmi ci yow xoolal wërsëgu borom bi ci yow yow itam nga dal di am comportement boobu ci ñi nga xam ne ñooñu ngay dundal seetal li la borom bi jox ci wér gi yaram ci jàmm ci xel ci matu cër ci wërsëg ci kaddu ci teraanga bi mu la jox ci diggante nit yi yépp boo ko seetee nga dal di taxaw wéet ak sa bopp waaw nga ne lii moom ndax juddoo ma ko may ndax aw réewama ko may danga fekk loolu yépp dara li la ko may mooy allahu subhanahu wa taala te joxeewu la ko nag lu dul natt la dal di la seetlu ki ñu leeralal anam googu mooy suleymaan alayhi salaam buur la ab yonant la li muy xeex mooy bokkaale loolu la gën a bañ ndekete woo yëgul am na ku mu sësaloo koo xam ne ab jigéen la la mu gën a bañ loolu lay def mooy jaamu ko yàlla jaamu ab jant moom may nañ ko capacité day duma ay jinne ñu koy liggéeyal ay jinne lay jël ñu koy liggéeyal ku bañ mu dal di ko punir yeew ko di ko duma waaye loolu yëgu ko xamul ne sax am na loolu xew na ba ab picc moo ñëw wax ko loolu manu faa dem be ñamu yelif ci ñooñu lay sàkku ku ko mun a defal soxlaam bi loolu dañ cay déggee mooy lu la borom bi subhanahu wa taala jox yépp ñi nga yelif jox na leen am na ci ku mu jox lum la jox am na ku man loo manul am na ku xam loo xamul kon boole leen ci mbir mi rafetal jëme ci yéen mais considéré ñépp suleymaan alayhi salaam dal di leen dajale ne leen maa ngi am gan gan laa bugg a am te dama koo bugg a teral te lama ko bugg a teralee mu méngoo ak la mu bàyyi këram kon lalam boobu laa bëgg ku ma ko indi am ku ne balaa ngay def nangam ak nangam loolu sori na am keneen ku ne balaa ngay xef xef ak xippi ma indil la ko mu ne ko bismillah mu ne lan la waroon naa dal di tagg boppam wala def leneen waaye déet xam na ne am bindeef la daif kon yëg na ne mënul waaye da koo xool ba mu yàgg mu ne haada min fadli rabbi ah lii sama ngëneel borom la xam naa li sama borom bi subhanahu wa taala nam a ashkuru am akfur day seet ndax dama koy sant wala dama koy weddi damay fëgg dënd ma ne haa dina xam ne man kon weddi na na loolu kon noonu la borom bi waxee ne nañu rafetal jëme ci ñeneen kon aaya boobu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye rafetal boobu luy kemam borom bi subhanahu wa taala indi yeneen ñaari aaya yu la koy firi mu dal di ñu wax ne laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha mu ne ah teguma benn bakkan nag lu mu man la lu tolloog sa man-man mboole seen lu ma wax ne farata la doomu adama ay beneen aaya bi ñëw kon lii kat li borom bi leeral fii mooy man manu jëf man manu yéenu man manu xeex man manu dox mu ne déet am na leneen lu ñuy rafetalee mooy joxe moomel kon dal di ñu waxaan ne laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataha mu ne ah toggu ma la te laaju ma la lu dul lu tolloog la ma la jox dërëm laa la jox waay waay ay fiftin la bëgg ci yow wala genn wàllu fiftin ay million la la jox waaye million la bëgg hakada lu tolloog lamu la jox loolu la bëgg même boo seetee asaka moo ko déterminé loo mun a am bu matee nisaab rek deux virgule cinq pour cent kon ki nga xam ne huit cent mille la am la muy joxe ak ko am un milliard du ñu benn loolu moo tax nit mun naa joxe aki dërëmam am ku joxe junneem nga ëpp ko yoon ndaxte ndax méngoo ngeen ci ihsaan ci li waa borom bi subhanahu wa taala jox am lim ko jox ndaxte boo ko méngalee da nga gis ne mooy benn gis ne du benn kon ku nekk la nga tollool lu mel noonu lañ lay bindalee ci ay tiyaabo mun ngaa am joxe dërëm ñu bindal la aljanna ñu bindal la aljanna ndaxte ndërëm soosu nga yaakaar waaye gis nga koo yaakaar ne kii daal moom a gën a aajo ndërëm si waaye bàyyil ma jox ko ko waay moo taxoon borom bi subhanahu wa taala tagg waa ansar alladina yuqiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ñii ñooy gënale keneen ci seen bopp doonte am nañ ci soxla loolu ni ko nit doon misaale mooy xëy léegi ni mu jafee xëy ni mu jafee ñu toog rek ci arrêt bi toog ba sonn mënuñu fexe mukk ba am oto am ku gaare rek ne ah am na ñuy dem béréb sàngam de mun naa leen a yóbbaale nga geesu sab xarit nga ne ah yaakaar naa ne maa la ëpp ndëgër laay te nga dal di dem mu yóbbu na loolu mooy isaar loolu mooy dëgg-dëgg def ngir yàlla loolu mooy dëgg-dëgg yéene keneen li nga yéene sa bopp waaye bu ñu delloo ci suñu société boo moytuwul ñu damm sa buntu pot ci néew doole moom bokkul ci néew doole bokkul en tout cas boo demoon ci société yéeféer yi day doo gis am njëkkalante abadan abadan oto bu gaaree bi nizam ci pran kii dugg kii dugg fees na mu départ keneen ñu xaarat leneen amma nahnu fama haaluna kon ñun ñi nga xam ne dañuy wax ne ñooy jullit te doxalin bu mucc ayib ci nose mooy al islaam te ñu dal di mel nii ilal aada kon la yonent ba waxoon moo ñëw ndaxte foog mu ñëw ndaxte mooy ki borom bi subhanahu wa taala di xabaare julli di dina bari lool waaye xusaa'un ka xusaa'i sayli mu ne dañuy bari lool waaye bari puuke la ñuy doon duñu tekki bari puuke duñu tekki ndaxte bari nañu de waaye ndax tekki nañu ban institution moo nekk ci suñu loxo ban nañu xelaat rek ñu ne bii la waaye ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi dund ak ñoom ñooy almasixiyun chrétien yi te ñun ñëpp ñu gëm ne hum alal baatil ñun ñëpp ñu ngi gëm ne ci neen lañu ne nekkuñu ci dara su fekkee am nga iman est ce que mat nañu deux pour cent waaye yan institution yu fi nekk yu ñu yore fexe nañ ba monopoliser lii nga xam ne mooy ab njàng li gën a am solo ci réew ñoom ñoo ko yore ñaareel ba ci mpaj ñoom ñoo ko yore ci organisation boo xam ne bu ndimbal la ñoom ñoo ko yore ñun lu ñu yore ah loolu dañ koy war a seetaat ihsaan bi ñuy wax kon fu ñu tollu ak moom iman bi ñuy wax kon fu ñu tollu ak moom ndimbalante bi ñuy wax fu ñu tollu ak moom mbokkoo gi ñuy wax fu ñu tollu ak moom te lii mel na ni dara xewul est ce que sax ñu ngi koy xelaat est ce que ñu ngi koy xelaat loolu sax est ce que sax ñu ngi toog ba xelaat ko est ce que yaa ngi toog ba romb école boo xam ne école chrétien la nga xool xale yi ni ñu bare est ce que yow ya tiire na sa sa sa attention nga xool xale yi yëpp maa masiru haula ah nga xam ne léegi plus de cinquante mille ay xale yuy jàng ci seeni école yi la ñuy jànge waaw est ce que yow yaa ngi xelaat waaw xale yi lan mooy seen mujj nu ñuy mujj amee ay masixiyoon la ñuy doon wala ay faux musulman kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yooyu nekk na ay kaddu yoo xam ne yu daje ci ay congrès yoo xam ne ñoom ñoo ko doon def ñuy leeral seeni jubluwaay congrès boo xam ne amoon na 1906 ci Zouaynir dal di wax ne ngir génne jullit yi ci islam jafe na waaye lii suñu mission nañu nekk jullit yu doyati ñu am turu jullit rek te li ñuy appliqué yépp du islam yépp bidaa lay dafi doon ñu dal di ko dëgëral nag dëgëral leen ko ne lii mooy diine lii mooy nangam lii mooy nangam ndaxte ñu ne loolu dong lañu mën a def colonisateur yi mën a dugg waaye lu dul loolu mënul nekk ahlu sunnati wal jamaa ci lu leer ci pas-pasu manhaju salafu saaleh waaye colonisateur mënul am buntu abadan fu muy jaar fokk rek mu jaar ci mbaggu bidaakat waaye lu dul loolu du reñe mënul dem mustahil sahaba yi kiram ñu néew la doon mais dañu duma woon al alam kullu waaye gis nga waaye ñoom xam nañu ko mais bu ñu seetee encore Senghor mais loolu la waxoon ba ñu toogee moom ci boppam ñu ne ko nag léegi nommé nañ la président de la république ah quatre vingt quinze pour cent di ay julli te yow doo ab julli te foog nga liggéeyal nag li nga ne waaye itam nag noo noo yaakaar ne noonu ngay def noo yaakaar ne noonu ngay def mu ne leen lenn de moom mun naa leen ko assuré ne leen ne ñëpp dinaa leen def ay chrétien moom munuma ko waaye dinaa leen assuré moom ñépp dinaa fexe ba ñu nekk faux musulman réussir na réussir na Abdou Diouf quatre vingt un ba mu jëlee ba mu demee France lu mu wax ah mu ne Sénégal ba mu dee du nekk jamais république islamique waaye mooy faux musulman kon même kaddu yi ñooy répété waat di dem di ñëwaat faqat kon loolu yépp nag li ko indi mooy doyadi jullit yi waaye bu ñu doyadi wu doon abada waaye munoo sax tànnal ki nga bëgg yow ki nga bëgg sax munoo koo tànn ah fi doyadi kay fii lay ki nga bëgg ci boppam ñun ñépp bokk nañu gëm ne la ñu bëgg mooy alquran ak sunna loolu moom képp koo wax ne bëggoo ko rek mu xeex ak yow waaw alquran ak sunna nga bëgg na te doo tànn alquran ak sunna Senghor marabu yee ko tànnoon teg ko fi ñoo ko tànn teg ko fi te boobu am na ay jullit yu fi ne ñu créer Mamadou Dia parce que li muy tëral mooy al islam al waadi lay dal di tëral li ñuy néew ay at yépp loolu fàttaliku nañ ko ay mbir yoo xam ne yu yu leer la dal di tëral bistron yépp mu dal di leen tëj jigéen ñépp mu dal di leen duma sëfoor sax ñemeetu la yóbbu jigéen bu amul bagage loolu ñun fàttaliku nañ ko sëfoor transport jigéen rek arrêté la ak misooram rek doo ko yóbbu mais kooku dañ ko créé yëkkati ab yéefar loolu li ko indi mooy bidaa waaye fekkoon ne manhaju salafi saalih moo ko indi kon yéefar naka la ñuy tànnee yéefar loolu nit ku nekk war na ko posé boppam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne duma jox yéefar kilifte ci jullit mukk waaye jullit yi nag bu ñu tànnee ab yéefar boobu moom wane ne lay su ni ni wane ne iman amul mais iman bu amul mustahil mantane kon loolu julli dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax nag ñu wut ab lay nag ëllëg kanam borom bi subhanahu wa taala ëllëg kanam borom bi subhanahu wa taala nañu wut ab lay ab lay lan moo taxoon nga tànn yéeféer bàyyi julli kon dañ ko lay ci kanam borom bi de lu tax ab kéeféer moo la gënal parce que wóor na la ne ab yéeféer moom du la dimbale mu pour nga daal di jàpp kooku moom mustahil te organisation yépp dañu bokk takkaayu ngir xeex li ñuy tuddee al islam ngir far al quranul karim ci seen xol parce que démb jaay rek lañ fi toog ñu ne léegi organisme international ay unesco ay une léegi war nañu delluwaat jàppale xale jàppale xale ne gis nañ ñi ci daara yi ñoo gën a sonn kon foog ñooñu la ñuy war a jàppale ñu dal di ñëw ñu ne dañuy indi seen ndimbal ñu ne léegi nag daara dafa war a am ndey kan lañu tànn ndeyu daara Elisabeth inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ne daara dafa war a am porte parole ku ñu tànn noonu Youssou Ndour la hawla wala quwwata illa billah day naam lii lañu taxawoon mais borom bi subhanahu wa taala wone waat kéemtaanam daara ya doon yelwaan dal di fay mu génnee daara yoo xam ne dangay dal di fay xaalis xale bi toog nekk jàmmam dal di jàng tari alquran lu mu néew néew parcelle azali ñaar fukki daara ak juróom a ngi yoo xam ne yu organisé la di génne ñoo xam ne alxaqabatul quran kon borom bi subhanahu wa taala li mu waxoon ci téeréem bi ba léegi mu ngi koy dal di wone inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu lahaa donte ñun nag ay puuke lañ waaye borom bi ne téere bi moom maa ko moom de maa koy sàmm maa koy aar donte nag ñun moom ñu ngi des rek nekk ay puuke waaye nañu xelaataat ci mbir yi xelaataat organisme yi wër rek lan lañu bëgg ak lan moo tax ñu sëpp ci jullit yi kon loolu buñ ko defee rek ihsaan bii ñu junj fii ak islam ba ñu junjoon ak iman ba ñu junjoon day dal di dal di mat te keroog ba nga xamee ne bakkan baa ngi génn aduna dina dégg ab kaddu bi ko borom bi subhanahu wa taala digu ndaxte ndigu borom bi subhanahu wa taala foog day dal di ñëw يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في yow bakkan bu teey bu laab bu baax bii génnal ci jëmm ji nga dem ci teraanga borom bi subhanahu wa taala nga dugg ci aljanna borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal allahuma arina alxaqa xaqan wa arzuqna husna ittibaa wa arina albatila batilan wa arzuqna husna ijtinaba wa axiru dawana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi borom bi subhanahu wa taala baaxee nañu ñu dajewaat ngir nafaraat suñu pas-pas ci téere al usul althalatha muy ñetti mbir yi nga xam ne jullit bu nekk war na koo xam xam sa borom xam sa diine teg ko ci ay tegtal xam yonent bi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam jàll nañu ñaari xaaj yi ba ñu ngi woon ci xadis jibril alayhi salaam ci moom lañu taxawoon ñuy war a tàmbale tey al aslu thalith maanaa aslu ñetteel ci ñetti usul yim ñu waxoon ne war na ci doomu aadama mu daldi ko xam amma bu tey bi mooy maarifatu nabiyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaaroon na ci ñun maarifatullah mu indi ci ay tegtal muy tawxidu rububiya wa tawxidu uluhiya wa tawxidu asmaai wa sifaat wéetal yàlla ci moomeel wéetal ko ci jaamu wéetal ko ci ay meloom ak ci turam ñu toftaloon ci al aslu thani mu nekkoon maarifatu diini l islaami bil adilla xam diine ji ngay jaamoo borom bi subhanahu wa taala teg ko ci ay tegtal tegtal bi ci mujj mooy xadisu jibril bi ñu waxal ponk islaam yi juróom ponk imaan yi juróom benn ak ponk ihsaan bi di benn tey nag ñu ngi ci beneen asl boo xam ne moo ngi yeneen yi ñoo tolloo ci am solo ak ci war ñu xam ko ñu teg ko nag ci déggiinu salafu soolex wàññi amu ci xaabaabal amu ci waaye digg doomu bi borom bi subhanahu wa taala waxoon ne moom lañu nekk mooy ummatan wasata mooy xeet wi nga xam ne mooy digg doomu ndaxte daa am lenn loo xam ne xaqullah lay dal di doon li ñu yonent bi doon tere nag ku ko def rek dina boole àq yooyu wa iyaakum walxuluwa na ngeen moytu romb fi fi ñu war a yem muy doon jalgati mooy xaabaabal ci bëgg dina indi ñaari mbir dina indi jox yonent bi cërub yàlla waaye dina indi itam jox keneen cërub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit la qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay na ngeen yëg ni doomu aadama laa ni yéen ca nañ ko sàkkee amma ca daraja déedéet moo tax borom bi leeral ne yuha ilay moom borom bi subhanahu wa taala di koy déey ci xam loo ko wala yónni jibril alayhi salaam amma nite ak liy dab doomu aadama ñu nag moom ñoo ci yem kon yëkkati ko ba génnee ko ci nite naan sàkkuñ ko ci fi ñu sàkk nit ñi ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne ci suuf si lañu sàkk minha xalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra fii laa tibb sàkk leen fii laa leen di delloo fii laa leen di yëkkatee ëllëg ngir àtte leen kon boo ñëwee nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo sàkk ci nuurillah loolu day nekk jox azaliya mooy azaliya loolu nag melo la ci melokaanu borom bi subhanahu wa taala mooy loo xam ne sàkkuñu ko kon yonent bi dañ koy génnee ci cadre niti ci cadre sàkk te moom dañ koo sàkk ndaxte xam nañu yaayam xamees na baayam te li doomu aadama yi ji jëf loolu lay jëf ba yéeféer yi loolu lañu layee woon ne duñ ko gëm borom bi subhanahu wa taala bu bëggee ñu gëm ko na fi wàccee ab malaaka borom bi ne bu fi malaaka yi dëkkoon ci suuf si nga dal di ko wàccee kon boo seetee dafa niroo ak ñi fi jaaroon muy alyahud ñoom gannaaw ragaluñu rusuñu ñu ne uzayru ibnullah annasara jaar fi dal di réer ñu ne almasihu ibnullah jullit yi xaabaabal jaar fi naan muhammadun sallallahu alaihi wa sallam xuliqa min nuurillah kon lan la wute ak ñeneen ñi nga xam ne loolu lañu waxoon ñoom seeni yonent ñu ne doomu yàlla la yow romb nga loolu mais nga ne yow itam sab yonent ci leeru yàlla lañ ko sàkkee xanaa da nga bëgg a wax ne kon yàlla la kon loolu mooy xaabaabal bi nga xam ne dañ koy moytu ci buntu bi waaye dañuy moytu it xañ ko li ko borom bi subhanahu wa taala dal di jox mooy ab yonent waaye dañuy gëm ne nag laa yaalamul xayba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamul lu nëbbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom xamu lu dëbbu waaye borom bi subhanahu wa taala moo koy dal di waxal waaye ndaxte borom bi ne na alxaybu moom moo xam ñi dëkkee asamaan wala ñi dëkkee suuf kenn xamu ko ah illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbi ila akhiri al aya kon borom bi ne xanaa day ki ma tànn yónni ko ah kooku day dinaa ko dal di jubal ndaxte damay yónni koo xam ne moo koy dal di waxal ba mu yeggee ci moom nag la génn ci xaybu xaybu moom mooy loo xam ne borom bi subhanahu wa taala dong moo ko jagoo ci xaabaabal boobu nag danga dem ba jox ab mbindeef al xaybu kon jox nga ko moomeelu borom bi subhanahu wa taala kon yonent bi la ñu bëgg ñu gëm ko mooy gëm ne nit la borom bi subhanahu wa taala moo ko tànn borom bi subhanahu wa taala moo ko yónni yonent boobu ngay dal di gëm lépp lu mu la wax nag te dindiwuñu ko nga xam ne looloo neex borom bi subhanahu wa taala looloo tax ñu ne yonent day doon maasuum maasuum mooy ku dul juum nekkul maanaa du juum aslan la mooy njuumteem du wéy waaye léeg-léeg nag mu def loo xam ne borom bi ne du nit kon loolu nuñ koy tuddee juum waaye njuumteem nag du wéy abadan amma keneen ku dul moom nag boo nee du juum kon jox nga ko lenn ci àqu yonent kon yéegal nga ko moom itam ba mu romb nit ku ñu yónni wul kon bu ñu delloo ci alquran dinañu gis ay jubbanti yu bari yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xanaa ñu junj ci rek ñetti jubbanti benn bi mooy silmaxa bi ñëw ci moom naan ko waar ma mu gis ne moom kii ku néew doole la kii ku bariwul mbokk la kii ku amul alal la waaye mu topp ñi nga xam ne ñooy abu jahlin ñu nekk ay kilifa yoo xam ne bu ñu tàbbi woon ci diine rek màkka yépp dal di tàbbi ci diine ndaxte ci seen loxo la dal di ne borom bi subhanahu wa taala ne ko xelaat boobu njuumte la mu dal di wàcce abasa wa tawalla an jaahu l ama kon ci yooyu moo tax fu fu mu doon ñëw rek yonent bi lalal ko ab mbubbam mu ne kaay toogal fii yow mii day yow lama borom bi subhanahu wa taala jubbante kon loolu lenn la ñaareel bi ci lii nga xam ne lii xew ci këru nit ñi xew ci këram mooy réeroo ak ay soxnaam ba mu bëgg lay delloo si réeroo boobu mu ne leen li taxoon ngeen mer day xaraamal naa ko ci sama bopp loolu moom jeex na xaraamal naa ko ci sama bopp dootuma ko def jeex na borom subhanahu wa ta'ala mu ne ko déet nag lima tuharrimu ma ahalla allahu lak tabtagi mardata azwajik waaye bugg a bégal say soxna nag da ngay xaraamal lu ma daganal du noonu kon loolu itam gis nañu borom subhanahu wa ta'ala ne ko du noonu ñetteel bi kii nga xam ne moo ko ne yaay sama doom maay sa baay bu ma dee nga donn ma boo dee ma donn la ndaxte ci aada dañ ko doon def borom bi subhanahu wa taala bugga dindi loolu ne loolu valableul nit ki ki mu jur rek kooku mooy doon doomam mu ne ko kee nga xam ne day mooy kooku nga doomale ci sa bopp nga dox ba ñu may ko soxna layna bintu jaxsin ah ak zaydu ibnu xaarisa mu ne léegi daal sëy bi naqari na léegi nag li fi sës mooy na ko zayd fase rek nga takko waa beneen mbir ñëwaat na mu dem ne zayd ittaqillah ragalal borom bi subhanahu wa taala tiil sa soxna borom bi subhanahu wa taala ne ko ah déet du loolu laa la wax de wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdi ah nëbb nga ci sa biir xol loo xam ne dinaa ko wone de dinaa ko wax ba ñu wone ko gannaaw danga koy nëbb nag falamma qada zaydun minha watara zawajnaaka ne gannaaw ba ci zeydu fajee soxlaam nag yow mii ne naa la takk ko loolu moo tax aïcha radiallahu anha da doon taxaw mu ne waaw man nii rek day la yonent bi jël may xale yéen ñëpp ay mag ngeen fi ñëwee ah zeynab bintu jaxse mu ne waaw loolu itam bu dee ngéneel waaye man itam sama sëy rek la ñu takk al ars yéen ñëpp seen bàyyi leen maye kon ki yooyu la ñuy gis ne yonent borom bi subhanahu wa taala moo ko aar lu mu def duni rek mu ne ko déedéet du noonu nii la kon loolu mooy gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ne alquran bii nga xam ne lépp lu yonent bi def mu nokk ci saxal ko rek da nga ko war a gëm te noonu nga war a dundee kon loolu mooy gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekkul yëkkati ko génnee ko ci cadre doomu aadama ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne doomu aadama la wala itam ne moo tax ñu sàkk nit ñi déedéet pas-pas boobu wérul pas-pas bi wér kay nit ñee tax ñu sàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yónneewuma la lu dul yërëm xeet wi kon kay sababu xeet wee ko fi indi kon yooyu yëpp borom bi subhanahu wa taala moom dafa leeral lu tax mu amal doomu aadama lu leer la wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni ngir ñu jaamu ko moo tax ñu amal ñu kon ci jaamu boobu nag la yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu leeralal ñu naka lañ koy jaamoo yonent boobu nag ku ko toppul bëggoo ko kooku doo bokk ci ñuy texe bëgg ko nag taxul nga jox ko li yàlla moom ndaxte loolu bokkaale la bëgg ko taxul nga xaabaabal ci moom ndaxte loolu bokkaale la dangay nangu ne nit la dangay nangu ne moom la mu indi noonu lañu war a jaamoo te la mu tëral itam ci yoon woowu lañu war a jaar loolooy bugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu borom bi baaxee ñu dal di ko bëgg kon yonent boobu mooy kan mooy muhammad ibni abdillah ibni abdil mutalib ibni haashim kon loolu lenn la ci càllal la bi nga xam ne moo jaar ci ay maamam loolu li ñu koy dégguloo mooy ki nga xam ne mooy suhayl ci sulxul xudaybiya ba yonent bi sal allah sallam jógee mu ne day dem umra mu ñëw ba dëgmal si màkka ñu ne du dugg màkka kilifa yi dal di yónni suhayl yónni nañu ñeneen ak ñeneen waaye pacte bi ñu signé moom suhayl ak yonent bi la mu ñëw mu ne ko léegi day daa am ay condition yu waa kiifay màkka tëral la bindoon ci fis bi ci kaw lii day la yonent bi déggoo ak waa quraish suxay la ne ko déedéet du ni du ni bu ñu nangoon ne yonent la duñu xeexal moom dañuy signé ay pacte déedéet mu ne ko nag lu ñuy bind hada mattafaqa muhammad ibn abdillah lii day la muhammad doomu abdullah ñu noonu lañ ko xamee loolu la ali ibn abi talibin mu ne loolu moom du bind turu yonent dal di ko far yonent bi ne ko foo ko bind mu ne fii la mu dal di ko far ñu bind condition pacte boobu kon mooy muhammad ibn abdillah ibn abdilmutalib ibn hashim hashim moomu nag mooy kilifay quraysh quraysh moom benn giir la ci giiru arab yi ñoom ci màkka ñoo saytu woon xaram bi maanaa kaaba bi ñoom ñoo ko saytu woon ci seen loxo la nekkoon ñoo ko doon aar te ñoo doon may ñii ñëw ak si lekk ak naan ñoo ko doon service boobu ñoom ñoo ko yore woon amma turu muhammad borom bi subhanahu wa taala tuddu na ko ci qur'anul karim tudde ko muhammad tudde na ko ahmad tuddu na ko wama kana muhammadun aba ahdin min rijalikum waxoon nañu encore muhammadun rasulullah walladina maa am na encore fi mu waxoon ci isa bnu maryam fi muy waxoon ne yonent dina ñëw ismuhu ahmad kon yi yépp dal dina rot ci tur boobu kon kooku mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon quraysh moomu ni ñu wax ne moom giir la woon ci giiri arab yi ñi ci ëppoon doole mooy quraysh ak banu umayya doonte ñoom ñëpp ci quraysh lañu maanaam banu umayya ak ñi nga xam ne ñooy banu haashim ñoom ñëpp nag ñu bokk daje ci giir bi nga xam ne mooy quraysh dëkkee woon makka ñooñu nag mu ne ñu arab yooyu min zurriyati ismail ibna ibrahim alayhim assalaam kooku càq bi daa jaar ci ismail dem ci ibrahim ki ñuy wax alxalil ki nga xam ne mooy xaritu borom bi subhanahu wa taala gannaaw ay nattu yim ko def te mu dal di jub jaar yoon dal di muñ borom bi subhanahu wa taala mu ne ko tànn naa la ab xarit kon kooku ci càllal la googu la quraysh bokk te ci ñooñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di jóge moom nag dund bi mu dund ci àdduna muallif bi ne ñu juróom benn fukki at la ak ñetti at ba mu amee ñeen fukki at lañ ko dal di yónni mu nekk ab yonent boo xam ne dañ koo tànn mu nekk xaatamul anbiya maanaa keneen dootul ñëw moo taxoon mu ne laa nabiya baadi amul beneen yonent boo xam ne day ñëw sama gannaaw waaye waxoon nañu nag dina feeñ kazabuuna thalaathuun kullun yadda in nubuwa mu ne fanweeri fenkat day dinañ fi jaar fenkat bu nekk ci ñoom nag dinay wax ne ab yonent la mu ne waaye nag wala nabiya baadi amul beneen yonent nag buy ñëwaat sama gannaaw kon yaakaar naa sénégal sax am na ci ay cër yoo xam ne taxaw nañ fii ne ay yonent lañu te yàllaa leen yónni mu nekk lu leer waaye yooyu yépp nag dañuy gëm ne ku ko ci wax rek kaddab képp ku mun a taxaw ne yàllaa ma yónni rek fen na ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte yonent bi moo leen tuddee ne dañuy fen ndaxte ab yonentu moom buntu boobu dal dinañ ko tëj léeg-léeg nag ci làmmeñu arab an nabi ak ar rasul tur yi xaw a wuute waaye li leen teqale ñoom ñaar mooy al xusuus wal umum bi gën a yaatu ak bi gën a xat ar rasul moo gën a yaatu lan mooy teqale nag diggante rasul ak nabi rasul mooy këpp koo xam ne ñëw nañu yónni ko te mu folli lim fi fekkoon bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ñëwee folli atte yim fi fekkoon ci isa bnu maryam kon mu nekk rasul amma ki ñëw nag di woote ci lam fa fekkoon di ko dëgëral kooku mooy nabi kooku mooy ab yonant kon àggul ci folli maanaa ci làmmeñu arab bi mu nekk rasul amma nag bu dee ñun moom yonant rek la ñuy dal di wax waaye arab na ci baat bi am na nabi léeg loo taxu léeg-léeg ñu naan nabiyun mursal nabi bu ñu yónni ak nabi boo xam ne nag moom ñëwul ngir folli waaye daa ñëwaat ngir fedd li kon yonent boobu am juróom benn fukki at ak ñett ba mu amee ñeen fukki at lañ ko dal di yónni gannaaw yonent bi mu dund ñaar fukk ak ñett ci biir ñaar fukk ak ñett yooyu ci lu wér ne jagleel na pas-pas fukki at yu mat sëkk nga xam ne la muy woote rek mooy nañu fas rek pas-pas boo xam ne bu sell la pas-pas bu jaar yoon la qulu la ilaha illa allah tuflihu tudd leen baat bi rek dal di texe kon pas-pas lu am solo la ci lañu war a tàmbalee ci mboole seenu mbir ndaxte pas-pas bu baaxee rek loo tabax ci kaw pas-pas ba mu dal di baax waaye pas-pas boobu bu dëngee rek leneen lu jub dootuñ ko fa mun a taxaw lu jub dootuñ ko fa mun a tabax abadan ndaxte pas-pas ci boppam mooy conditionné mboole seen cër bu nekk ci doomu aadama kon moo tax bàyyi xel ci pas-pas ak tàmbalee pas-pas ak yittewoo pas-pas mu nekk lu ama am solo kon ñaar fukki at ak ñett mu ngi nekk yonent di woote jëme ci diine borom bi subhanahu wa taala wootewul jëme cib sant wootewul jëme cib xeet wootewul jëme cib riiw kon bépp ku woote bu jëm cib sant da'wa jahiliya bépp ku woote bu jëme cib xeet da'wa jahiliya bépp bu woote bu jëme cib réew da'wa jahiliya loolu yëpp mbiru ceddo lay doon jël benn sant rek nga jagleel ne ki am sant boobu rek mooy kilifa wala mooy ku baax wala mooy ku ku sell loolu moom booy wut ab ceddo bay daje kooku kooku mooy ceddo dëgg ndaxte islam moom sant moom daf ci insisté wul islam moom doomu diw la xam amma bi mu jaral sant kese loolu mbaax nekku ci ab texe nekku ci dara nekku ci sant boobu sax mun nga koo topp ba alkande dal la ci topp wa kazalika làmmiñ ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne li tax ma wuutele du dara lu dul xamante du dara lu dul xamante moom borom bi subhanahu wa taala moo ñu ne wax ne sàkk nañu gannaaw bam ñu sàkkee mu def ñu suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum ma def leen ay xeet ma def leen ay waaso ngir ngeen xamante xamante boobu nag bu rombee ngir xamante rek ngir léegi tagg sa bopp wala puukare wala leneen bokk ci wala nga fonkee nit ab santam def nga mbiru ceddo loolu mbiru ceddo la nit duñ ko fonkee sant nit duñ ko fonkeb réew nit duñ ko fonkeb xeet nit ki liñ koy fonkee mooy ak taqwa yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala defal taqwa kon nag sant moom du dara ndaxte sant day soppeeku léeg-léeg nit sant nii ab jafe-jafe ñëw wala ab coono ñëw mu dal di sant neneen loolu moom lu ñu nemmeeku la ci jamono kon loolu moo tax olof yi ne sant moom dëkkul fenn gannaaw dëkkul fenn nag lu tax ngay sellal ab sant kon loolu lu ñuy war a settantal la kon moom ci boppam yónnee nañu ko bi iqra looloo tax léeg-léeg ñu ne nubbi a bi iqra wa ursila bil mudaffir mu ne moom yónnee nañu ko keroog bañ ko defee yonent mooy keroog ba iqra wàccee iqra bismi rabbika alladi xalaq xoolal borom bi subhanahu wa taala ci ay jikkom yu mat ci xelam bu fés ci ñëpp wóolu ko ba di ko tuddee al amin ba benn fitna mos naa am ci turam ak taxawaayam la ko borom bi subhanahu wa taala defaree te boobu sax yónneeguñu ko dañu tabaxatoon makka maanaam defaraat kaaba bi toxal xajarul aswad ba ñu pare nag léegi ñu wuute ku koy delloo kuy delloo xajarul aswad ndaxte delloo ko palaasam rek heure boobu dañ koo jàppee ne ak ngëneel la ñaal xeet ba ko delloo ndaxte day wéy dañ koy bind ci histoire xeetu diw daal ñoom ñoo delloo woon hajarul aswad mu indi fitna ñu daal di delluwaat ci ay jaasee ki ay xeej ñu ne waaw léegi nag nañu déggoo ci lenn nañu toog ku njëkk a ñëw rek àtte ñu ndax yéen ñëpp d'accord nga ñu ne ñu ñëpp d'accord nañu ñu toog rek muhammad ibni abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi dal di dugg si te boobu yónneekuñu ko mu ngi nekk xale bu góor ñoom ñëpp ñu ne radina wallahi bég nañ ci xale bi mu àtte ndaxte mooy al amin mu ne leen indi leen ab sër ñu lal sër moom mu jël xeer wi teg ko ci sër bi xeet gu nekk mu ne tànn leen kenn ñu tànn ñu ñëw téye ci sër bi dem ba yegg ci palaasam mu yëkkatiwaat ko dugal ko ci palaasam déggoo dal di am kon kooku sikkuñu ko woon ci benn mbir sikkuñu ko woon ci benn mbir waaye nag ba ko borom subhanahu wa taala nammee yónni rek mu ne ko demal jàngi demal jàngi kon bu ñu nax suñu bopp ku réere diineem ah xanaa ñu yaakaar rek de waaye day mbir mi doy na waar de ndaxte borom bi subhanahu wa taala wax na aaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na hadis ñaar yooyu boo ko méngalee dangay gis ne ku xamul doo texe de innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamaau kii mun a ragal yàlla ragal bi lay yóbboo toroxlul borom bi subhanahu wa taala mooy ki xam xam nag waxuñu luñ la laaj nga tontu déedéet mooy na nga xam ni ngay jaamoo sa borom nga am na ñuy tuddee ak daruriyaat mbir yi nga xam ne mooy principe yi mais yooyu foog nga xam ko nooy jàppee nooy tiimee nooy jullee nooy wooree julli bi bu jamuñ amee noo koy defaree waaye mbir yooyu moom alal aqal foog doomu adama xam ko lii boo ko xamul doo julli ndaxte dangaa bay waaye yeneen yi moom xam nga ko dal di nekk ci diinal islaam yi dund ci juróomi at juróom benni at fukki at ba léegi loolu réeree nga ko buggoo koo xam yaa xi kon loolu moo tax dina fekk des na kon aaya boobu nañ ci bàyyi xel hadis bi yonent bi sala alai sallam wax ne man yuridillahu bihi xayran faqihu fi diin yàlla bu nammee ci yow jàmm dina la dégguloo sa diine waaye boo nekkee ab mandaari bu déggul sa diine nag lu yàlla namm ci yow mooy mbugal ul nax sa bopp kon foog ñu dégg suñu diine lii ñuy def nag juzul la ci dégg sa diine moo taxoon yonent bi ne ku sol dàllam jaar ab yoon dara jaarloowul la yoon bi lu dul xam lu sa diine borom bi subhanahu wa taala soppil la yoon boobu yoonu aljanna soppil la yoon boobu yoonu aljanna xoolal al alim hatta al hiitaanu fi l bahri yastaghfiruna ki xam sa diine taxaw di ko pratiqué yonent bi ne njanaaw yi ci biir géej gi sax dañuy jéggulu borom bi subhanahu wa taala naan ko jéggalal diw jéggalal diw kii xam di nelew moo ëpp tiyaabo ki xamul di jaamu yàlla ki xam ba pare tëdd ak xam-xamam di nelew moo ëpp yool fuuf fa mu nelew ñu koy bindal yool bu ëpp fuuf kii xamul taxaw di jaamu borom subhanahu wa taala di ko julli di ko rukual di ko sujuudal ki yeewu bu yeewoo rek naan alhamdulillahi rabbil alamin moo ko ëpp yool fépp kon nag xam-xam ci bàyyi xel de kaadal jahlu an yakuna kufra riiree sa diine ñu ne xaw naa nekk weddi réeree sa diine rek xaw naa nekk ab yéeféer kon nañu yittewoo xam suñu diine looloo tax mu ne moom mii de yónnee nañ ko ci iqra dañ ko ne jàngal lu may jàng bi ismi rabbika alladi xalaq jàngal sa turu borom bi sàkk kon loolu boo xesee xam ba saxal ne moo sàkk rek kon keneen ku sàkkul def lay wër na yaag mooma yem ndaxte dañ koo sàkk keneen ku sàkkul def lay wër na yaag mooma yem lum la tare dañ koo sàkk dafa am baay am ndey yow itam kazalika day jaamu yàlla texe bañ koo jaamu texe wati yow itam kazalika kon bu la woowee ci jaamu borom bi subhanahu wa taala wuyu ko bu la woowee ci boppam ba ko fa fa huwa taaxutun min attawaaxi kooku dina fekk benn buxaaba la ci buxaaba yi kon kooku ku ñuy war a moytu la nit ki day woo nit ñi nañu jaamu borom bi subhanahu wa taala nañu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo leen woowee ci sa bopp wala ci sa maam wala ci sa juddu kon kooku mooy ki nga xam ne def na daawa jahiliya mooy ki delloo nit ñi ci ceddo mu ne moom ci boppam dañ koo yónnee na nekk na yonent nag tegaguñu ko service pour mu jottali waaye ñu ngi ko tegee jottali ci mudassir yaa ayuhal mudassir qum yow kooku jël benn sër di ko sàngoo de tolluwuloo ci toog di sàngu wala di noppalu inna sanulqi alayka qawlan saqila li may dugal ci yow ha wax bu diis la amatoo jot pour toog amatoo ko jot xum fa andir jogal de jogal xuppaate ngir nit ñi bàyyi laata bàyyi uzza bàyyi manaata salisatan uxra ngir ñu bàyyi ñooñu jaamu borom bi subhanahu wa taala kon jogal nga dal di kuppaate kon kuppaate boobu moo tax ñu ne foofu lañu ko yónni moo tax ñu wax ko ne fasda bima tumar wa arid jahi kon fii na nga jog yow ci sa bopp nga dal di woote ci liñ la digal waaye na nga dummooyu nag ñu réer ñi bokkaalekat yi yéeféerkat yi dummooyu leen luñ la def bul fayu mu nekk ci lii ba jëmbat ab pas-pas ba bu fayoo am ñoo xam ne dañuy taxaw mu jaral leen dee borom bi subhana wa taala maanaam dañ leen doon tooñ nag fayu leen gis na dañ leen doon tooñ fayu leen kon nit ki bu jógee bu nga tàmbalee ci jihaad du sotti déedéet dangay tàmbalee ci pas-pas ba pas-pas bi jaral la sa bakkan lu dul loolu loo fi mun a wax nit ñi di yuuxu di fottosu bu bakkan buy wadd desee rek nga gis ne yow kenn yaa fi des ñëpp dem nañ loolu ngay dal di gis yow kenn yaa fi des ñëpp dem nañ kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax la ñuy tàmbalee mooy al aqida pas-pas gis nga pas-pas bi bu dëgëree jeex na fu ngeen demati day dal di dëgër ndaxte nit ki da koy jaral dee ku bëgg dee ak ku bëgg dund ñaar ñi mënuñu ànd seen xeex du sori mënuñu ànd moo tax ci gazwatu badrin déggoon nañ benn sahaabi boo xam ne dañ koo caw jaasi mu jóge ci fasam di daanu ngir faatu mu gëñ naan fustu wa rabbil kaaba mu ne wallahi ci borom kaaba bi texe naa waaw lan moo tax mu ne texe na dee na fi sabilillah ah koo xam ne nag bu buñ ko dégmal ci jaasi mu wooyaayam ah kooku kooku dina fekk des na loolu du sotti abadan dina fekk des na xaalid ibnul walid ba mu feebaree feebaru dee dal di jooy ñu ne ko xaalid radiallahu anhu dangay caali ma caalituma de xool leen sama yaram foo xool liggéet la liggéetub jaasi liggéetub paaka liggéetub xeej foo xool rek waaw man maa ngi nii léegi di médd allahu akbar maa ngi nii léegi di médd moom jàpp na ne dee ci sa kaw lal rek médd la li dul médd mooy ñu faat la fekk yaa ngi yëkkati kàddu la ilaha illa allah kon nag loolu tàmbalukaay bi mooy fa yonent bi tàmbalee woon mooy pas-pas fukki at mu ngi woote ci pas-pas kon fokk ñu yittewoo lii nga xam ne mooy pas-pas ba pas-pas boobu jaral ñu bakkan jaral ñu doom jaral ñu soxna jaral ñu alal heure boobu nag bu ñu jógee lu ñu bëgg rek dañ koy am lu ñu bëgg rek dañ koy dal di am moo tax dañu waxoon ne ñi doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam law araadu xal al jibaali la xalauha mu ne suñu bëggoon buddi xeer yi rek dinañ ko buddi moo tax waa furs ñi nga xam ne ñooy perse yi ñoom dañ doon yónni ay jaasuus ay agent secret ñuy seet ndaxte fu ñu dajeeg saxaaba yi rek ñu dumaleen ñu ne lii moom foog ñu seet lan la ñu yónni am ku ñu yónni mu ñëw wër si madinatu munawwar waaye ba mu demee ñibi mu ne lu ñu mun a def gaa yi doon ñu lu ñu mun a def rek gaa yi doon ñu firsaanum fi nahaari wa ruhbaanum fi layli mu ne gis nga ñi ngay gis de ay gawarkat lañu ci bëccëg bi waaye jaamukatu yàlla lañu ci guddi bi bu ñu dajeeg ñoom ñu ñu ñu doon ñu kon fokk loolu dal di am jaamu yàlla nag balaa nga ciy xër waaye dangay xam nag njëriñu jaamu yàlla njëriñu jaamu yàlla boobu lañ la koy won nag mooy pas-pas mooy al aqida kon yàlla nañu borom subhanahu wa taala defar suñu pas-pas mu ne yonent boobu nag moom réewam mooy makkatal mukarrama foofu la juddoo foofu la yaroo foofu lañ ko yónnee waaye nag mu gàddaay jëm madinatul munawwara foofu itam la tabaxee ad dawla al islamiya kon al hijra kooku itam ñu dal di ko bàyyi xel loolu nag li koy jubbanti mooy pas-pas dëkk nga foo xam ne munuñ faa jaamu yàlla lu tax doo fa jóge dëkk nga foo xam ne amul jàkk boo mun a jaamu lu tax doo fa jóge am na ñoo xam ne boo leen doon jaay kër ñu geesu gis jàkka rek banum kër ga amatul valeur di kër ah tey moom coono la loolu bés bu nekk ñu gis ko kër bu jege jàkka ku gëm yàlla rek moo ciy def xaalisam du loolu amul valeur ndaxte nodd yi daf leen di tànqal ngir yeneen ak yeneen ak yeneen yu mel noonu jaaykatu kër yi xam nañu loolu luyekat yi sax xam nañu ko waxuma la jaaykat yi luyekat yi sax xam nañu ko kon loolu nag lan la loolu mooy pas-pas loolu moo tax bés penc ña néewoon doole wala ña ñu néewaloon doole ñu jàpp ko mu nekk ab lay waaw yéen moom lan moo tax jaamuwu leen yàlla ne ah borom bi subhanahu wa taala kunna mustadafina fi l ard dañu néewaloon doole waaye quartier bi ñu dëkkoon kenn mënu faa jaamu yàlla jàkka ji ñu nekkoon daal coono la rek bidaa rek ngay jëf waaye bu loolu munul am borom bi subhanahu wa taala mu ne aha noonu la meloon ñu ne aha noonu la meloon mu ne waaw alam takun ardullahi wasia fa tuhajiru fiha waaw suufu yàlla si moom ndax quartier boobu dong la woon wala réew moomu dong la woon wala dëkk boobu dong la woon wala jàkka jooju dong la woon lu tee woon nga gàddaay nga dal di tokku dem fa ngay jaamoo borom bi subhanahu wa taala kon nag loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax hijra lu ama am solo moo taxoon yonent bi ne lawla alhijratu la kuntum ru'an min al ansar mu ne bu nekkuloon ngéneelu gàddaay ah ni kon dinaa boole sama bopp ci waa ansaar waaye nag gàddaay dafa am ak njëriñ de xoolal njëriñu gàddaay njëriñu xaswatul badr njëriñu ansaar njëriñu bayatu ridwan yii yëpp sahaaba yi munoon munoon nañ ci fuukarewu waaye kenn ci ñoom fuukarewu ko te yonent bi nee na rek xanaa yégoo ne ñi teewee woon badr borom bi subhanahu wa taala sëpp na leen xool leen ne leen gannaaw tey jëf leen lu leen neex jéggal naa leen donc amul daraja bu ko gën waaye kenn doorul ci sahaaba yi ab dënna mu ne man bokkoon naa ci xasatu badr déedéet daa iman foo leen fekk rek ñu ngi xër di jooy di jéggulu borom bi subhanahu wa taala seeni bàkkaar di xeeb la ñuy jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye ñun nag ab sant rek ñu dal di ci puukare woo wala ab dëkk rek ñu dal di ci puukare woo kañ la loolu nekkoon puukare woo kañ la loolu nekkoon lu mun a sellal ab doomu aadama kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala jubal moo tax mu ne ñu yonent boobu yónni nañu ko bin nazarati ani shirki ويدعو إلى التوحيد kooku dañ koo yónni ngir mu xupp nit ñi jëlee nit ñi ci bokkaale jëmaleen ci wéetalal borom bi subhanahu wa taala kon yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax wéetal borom boobu subhanahu wa taala mooy nan ko jaamu moom kenn dong yonent bi leelaraan na ko muaz ibni jabalin mu dal di war maam waral muaz ca gannaawam mu nekk xale bu ndaw ñuy dem mu ne ko yaa muazu أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم نكو وا مو ndax yow mu am ndax xam nga lan mooy àqu yàlla ci loosu jaam yi ndax xam nga lan mooy àqu jaam yi te borom bi subhanahu wa taala moomale ko jaam yi ci boppam ah loolu de moom yàlla yonentam ñoo ko xam mu ne ko xaqullahi ala al ibadi an yabuduhu wala yushriku bihi shay'a mu ne àqu yàlla daal mooy nañu ko jaamu te duñu ko bokkaale ak dara akku jaam yi nag mooy këpp ku ko bokkaalewul ak dara du la mbugal abadan lañ fay dégg na mooy ku bokkaale ñu mbugal la ndaxte bokkaale moom day màbb ab jëf kon loolu la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee woon loolu moo doon mission am kon mission boobu dañ ci war a bàyyi xel ñu taxaw ngir mission boobu mun a wéy mun a dem moo tax jihaad kooku dong lay xeexal jihaad du xeex ak yow naan la gëmal déedéet def lay wax ne bàyyi ma ma woo ko bugg a gëm boo ko ne mu ngi noonu demal kooku la ñuy tuddee al muahid mooy koo xam ne déggoo nañu ak moom mu dal di des ci diineem diine ji dal di ko seetaan aar ko nag ne ko nag gannaaw wax nga loolu lan dootoo yenu ngànnaay ngànnaay dootoo ko yenu de ab yéeféer buy dund ak jullit du yenu ngànnaay lu dul nag ngànnaayu jëf li yoo xam ne dañ koy liggéeyee lu mel ni yet booy doxanto lu mel ni jaasi booy liggéeyee lu mel ni paaka booy liggéeyee loolu moom duñ la ko tere loolu moo tax abu ubayda amir ibnul jarrah radiallahu anhu mu wone woon exemple bu leer ba nga xam ne ful su jot na bugg leenaa song impo bi mu jëloon yépp mu woo leen delloo leen ko ku ne mu ñëw mu ne lii nga joxoon fi impo de mu ne waaw tiil sa impo ndax li daganoon li taxoon impôt bi dagan ci ñun mooy ñu aar la munatu ñu aar suñu bopp kon nag teel sa impôt ba ñu xam mbir mi fa muy mujj allahu akbar moo tax kooku la yonent bi tuddewoon aminul umma amin al umma ci loolu nag daa am ay mbir yu mu taxawee woon ba ñu tuddee ko aminul umma lii lenn la ci mbir yooyu ñaareelu mbir bi mooy moo faat baayam baayam mu ngi ci ma askarul kufri moom mu ngi ci mu askarul imaani mu daje moom yóbbu ko allah ngir imaanam ñetteel ba moom ci boppam la umar ibnul xataab radiallahu an waxoon ne bu abu ubaydata doon dund rek ma bàyyee ko xilaafa bi kon loolu moo tax bokkul ci xulafa urasi bu doon dund ma bàyyee ko xilaafa bi bu ma fekkee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ma amu lay koo bàyyee jullit yi mu ne ki nga tuddee woon aminul umma kon ci loolu lañ ko tuddee suñu jàkka bii abu ubaydata amir ibnu jarrah kon looloo tax ñu bëgg jàkka bi joxe mission bi ñooñu doon joxe mooy jàngale delloo nit ñi pas ci pas-pas bu sell génnee nit ñi ci dellu ci xeet wala dellu ci sant wala dellu ci quartier wala dellu ci réew ndaxte loolu mbiru ceddo la loolu moo tax day dellu rek ci wa anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahda kon loolu mooy mission jàkk ji nga xam ne mooy abu ubaydata amir ibnu jarrah kenn tanew fi masamba ak mademba kenn moomul jullit yépp a moom waaye nag bidaa moom fi am li fi am daal mooy yàlla nena yonent bi nena ndaxte loolu dong mooy indi bennoo yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal ndaxte boo bokkee ci tarixa keneen bokk ci beneen keneen bokk ci beneen yow la sax tarixa joxe nga ne fii nga koy def keneen ci ne day joxe kon fitna am na histoire am na réeroo am na mooy ku nekk la mu denc ci mbiram mu nekk doxalinam diggante mu tarixaam na ko denc ca këram bu ñëwee ci abu ubayda amir ibnul jarrah ñu ne yàlla ne na yonent bi ne na ku delluwaat nag dellu yaa xam ci leneen looy dellu ndaxte loolu dong mooy indi jàmm yoolu dong mooy indi déggoo yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal kon gannaaw waxtu bi dab nañu te dalil bim ñu bëgg a indil mooy li ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk suratul mudassir mu laaj ab yaatal ndaxte njëlbeenu woote la a raxas ab jikko la a raxas ab xol la génnee fa mboole seen la fa nekkoon dugal fa borom bi subhanahu wa taala kon loolu mooy mission bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawee woon mooy ad da'watu ila tawhidillahi subhanahu wa taala kon ñu tënk ko fii ba bu ñu borom bi subhanahu wa taala baaxee ba ayub bés bii ñëw yal nañu may fekk ñu am kattan ak tal ko wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi woon ci al aslu thalith ci usul yi nga xam ne moom lañu seex bi bi muhammad ibn abdul wahab radiallahu an tàmbalee na ci ñun ci ñett yi nga xam ne dafa war ci jaam bi mu daldi ko xam yittewoo ko jëfee ko mooy xam kan mooy boromam xam lan mooy diineem teg ko ci ay tegtal xam lan mooy yonentam ñu ngi woon ci xam yonent boobu yonent boobu mooy kan fa mu dëkkoon mooy fan la tax mu jóg mooy lan dañ ko sàkk ni ñu sàkkee doomu aadama yi dañ ko war a gëm ñi nga xam ne noonu la ñu gëmee yonent teg ko ci palaasam jox borom bi subhanahu wa taala la mu yeyoo topp jox yonent bi la mu yeyoo te loolu mooy topp ko te roy ko kon ñu ngi taxawoon ne kooku mu ngi dëkkoon makkatal mukarrama daldi gàddaay jëm madinatul munawwara te dañ ko yónni ngir mu xuppaate ngir ñu sori bokkaale mu woo jëme ci tawxid mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala loolu nag aajo ay tegtal mu waxoon ñu ne moom ci boppam day nekk na ab yonent di nabi ci iqra nekk na ab yonent buy jottali ci mudassir ñu waroon a tàmbale nag ci maani almudassir kon saar bii dafa wàcc ci leeralal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawaay bi mu war a taxawee su ko taxaweewul borom bi ne ko fama ballagta risala kon lañ la joxoon yegsi te taxawaay boobu itam warul wàññi te warul yokk ci anam googu lañu borom bi subhanahu wa taala wonoon ne bu lenn amoon rendi dal di am kon li mu fi des rendi wuñu ko ba mu wuyu ji boromam moo wone ne li ko borom bi subhanahu wa taala waxoon wàññiwul يقول ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين borom bi mu ne cëy boo ma sosaloon dinaa la tër dagg sa loos te amul kenn ku ci man dara kon looloo won ne sos amul kon mudassir bii wone ne ci fii lañ ko wax na jog noflaay amatul kon loolu mooy won ab jullit itam warul yëgab noflaay ak fiix feek bokkaale ngi ci kaw suuf feek ñaawte fa ngi ci kaw suuf kon war na bu wéetee muy xelaat nu lii di dëñee su fekkee amalu ko pexe mu ne man boog duma ci bokk ndaxte loolu mu amal na ko pexe nu lii di dëñee amalu ko pexe waaye amal na pexe man duma ci bokk kon loolu nekk lu am solo borom bi subhaanahu wa taala netti li ñu ne yaa ayyuha almudassir qum fa amtir atadassur mooy jël dara sàngoo ko dal di muur sa yaram ngir am na loo tiit bëgguloo koo gis ngir muuru ndax mucc ca loola wala am na lu la xatal bëgg nga mucc ca loola itam dal di muur sa yaram loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis jibril alayhi salaam kama xalaqahu llah ni nga xam ne noonu la ko borom bi sàkkee moom mu ne man daal dama gis rek yasuddul ufuq gox yi yépp daal di fees ci sàkkeef gii nga xam ne mosuma koo gis mu dal di tiit dellu ca kër ga soxla nañu ko muur loolu itam di ñu fa jàngal xereñte bi borom bi subhaanahu wa taala def ci sàkk ñaar ñi kii di góor kii di jigéen mu won ñu ne kii di góor bu jaaxle dafa war a dellu ci kii di jigéen ca kër ga mu seet ndax am na ci man-man te borom bi leeraloon ñu ne looloo taxoon ñu amal ko moom jigéen ndaxte waxoon nañu ne wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunu ilayha kon bokk na ci samay kéemtaan moom borom bi mooy wax li ma leen sàkkal ci seen bopp ay soxna ngir ngeen dallu ca ñoom kon ki ñuy dallu ci moom itam kat war nañu ko waajal waaye war naa waajal boppam ngir lépp lu ñëw ci moom dal di am dal daluk xel daluk xol daluk yaram ak fiix loolu bokk na ci li tax ñu amal ko moom jigéen looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu ki gën ci soxna yi mooy man ida nazarta ilayha asarratka wa ida amartaha ataatka wa ida ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika kon ki gën mu ne mooy koo xam ne foo ko xool rek bég li lay bégal mooy jikkoom doxalinam diineem colinam ndaxte lépp yàlla nga ciy gis mu ne te soo ko digalee mu nangu moo xam jëf la moo xam bàyyi la te soo fàddoo mu sàmm boppam ngir sagal la waaye dina la sàmmal sax moomeel kon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ci soxna sii di Khadija radiyallahu anha mu ne ko sàng ma ndaxte ragal naa ne dama bugg a alku soxna si ne ko abadan doo alku am na jikko yu ne ci yow du nekk ci doomu aadama muy alku abadan ndaxte yow mii dangay jox ku ñàkk dangay dimbali ku sonn dangay jokk ku la dagg te dangay jox ku la xañ te dangay baaxee ku lay xas ne jikko yii du nekk ci mbindeef muy alko walla muy torox donte moom xamul lu xew waaye ba kooku dalee ñu dalal ab xolam mu yaakaar mu wóor ko ne lii kon jàmm laay doon mu yolleeku dem ci waraqatub nu nawfal kon benn mag bu nekkoon makka te nekkoon na ci diine nasraan mu ne ko sama borom kër day tiit naa ci moom wax na ma nangam aki nangam tiit naa ci moom de donte nag dalal na xelam waaye tiit na ci moom mu ne ko ah ni nga ko waxee daal la doon ñëw ca muusa muy naamuus mooy ñëw ci moom kii kii mooy yonentub xeet wi kat ndaxte ki doon ñëw ci muusa mooy jibril alayhi salaam suma doon dundu keroog bañ koy génnee dinaa ko jàppale suma doon dundu ba fekkee keroog bañu koy génnee dinaa ko jàppale bañ ko ko waxee moom yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wax jooju nekk ju ko jaaxal mu ne ndax ñoom dinañ ma génni moom lañ doon wax amiin moom lañ doon dénk moom lañu soxlaw bégoon ngir mu àtte leen lépp luy xew seen diggante bés ñëw ñu génnee ko mu ne ko waaw lii ngay wax amul kenn ku ko musa indi ciw xeet lu dul génnee nañu la kon wax jooju mu jamel na mu ko waxee woon almuhim loolu mooy gën a leeral rek taxawaayu jigéen ñoo xam ne borom bi subhanahu wa taala neenalu ko borom bi subhanahu wa taala fàttewu ko waaye borom bi de koo sagal sagal bim ko sagal bokk na ci ne bul génn bokk na ci ne suturaalal sa yaram bokk na ci ne bul dem yow kenn ndaxte bépp kilifa boo xam ne boog dem nañ ba yaakaar ko bi am ci moom cofel yii day ñun ñooy jog rek defal ko yii dootuñ ko nangoo bàyyi mu dem moom kenn abadan ndaxte daa am teraanga buñ koy jox loolu dafa bokk ak teraanga kon borom bi subhanahu wa taala bu ko jaglelee jigéen kon loolu mooy teral ko mooy màggal ko donte ay kàddoo ngi jóg di wax yeneen mooy nañ ko yeew wi mu dem waaye yaakaar naa diine mosu koo yeew diine moom de ko wax ne kaay baax texe boo féttirloo texe wati kon aaya boobu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam firi fii firi bu leer moo tax borom bi woo ko ne ko yaa ayyuhal mudassir ee yow kii sangu xum jogal tëdd amul place fii xum jogal fa anzir na nga xuppaate ndaxte nit ñaa nga nale di jaamu laata ñalee nga nale di jaamu uza ñalee nga nale di jaamu manaata thalithata al uxra am na ñeneen ñuy jaamu leneen ay jantaki ay garab ay jamano ndox safara malaaka jinne doomu aadama rab loo xelaat ci aduna am na ñu koy jaamu kon nag jogal xuppaateel ndaxte borom bi subhanahu wa taala bëggul loola xuppaate boobu nag li la ciy dimbale wa rabbaka fa kabbir ey fa addimhu sa borom bi subhanahu wa taala màggal ko màggal ko nag mooy lang koy defal bu ko keneen amati la nga koy defal moom borom bi subhanahu wa taala loolu na nekk sa diggante ak moom waaye bu ko defal le keneen mbaa leneen dina fekk màggal ba des na kon booy ñaan ñaan ko booy sukkandiku sukkandikul ci moom booy ñaan ak xettali xettalikul ci moom booy ñaan ak muslu muslul ci moom booy ñaan ak wollu wollul ci moom booy jaamu jaamu ko booy tiit ragal ko booy bëgg bëgg ko mbëggeel boo xam ne mbëggeelu keneen àggu fa kon wa rabbaka fa kabbir kon waaw nga jéggal ñu dañ ci teddee ndaxte dangay am ak njub dangay xam ne kenn du moom loolu boo xesee xam ko rek loolu mooy dëgg-dëgg liberté ndaxte li gën a bon mooy notelu xel ndaxte gannaaw ba colonisateur bi ci boppam xam ne fetel jaasi manatul léegi li mu sukkandiku mooy ci xel boo seetee firawn ku xamoon mbir yooya la ci xel la sukkandiku gannaaw doole ci xel la sukkandiku mooy doyadal ba nga yëg ne dangaa doyadi ñu soog laa mun a noot amma boo sukkandikoo ci borom bi subhanahu wa taala dangay am liberté xelaat dangay am liberté jaamu dangay am liberté doxalin ndax sa yoon dootul nekk ci keneen mbaa leneen sa yoon a ngi ci borom bi subhanahu wa taala moom dong kon dangay noppulu moo taxoon borom bi subhanahu wa taala defal ñu misaal mu ne waaw ñaari nit laa leen di misaale kenn ku am njaatige yu baree bari ñu koy xaccoo ak kenn ku am benn njaatige dong nag moom rekk a ci am sañ-sañ mu ne ndax ñaar ñooñu dinañu yem tontu bi mooy abadan du ñu yem kee moo gën a noppalu kon ci anam googu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax moo tax mu ne ñu fii wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahhir fii tam mu digle fi laab wa siyaabaka sa yére fa tahhir nan ko setal am ñeneen ñu ne liñ fii junju mooy amalaka sa jëf sa jëf bi ngay jëfal ngir borom bi subhanahu wa taala fa tahhir mooy nan ko sellal ci bokkaale bokkaale boobu ñu fay junju nag mooy arriya mooy njistal jëf ji dafa war a sell moo tax ñaar ñooñu mooy sartub ñu nangu jëf mooy sell ak toppandoo ñu daldi xaraamal bokkaale bi nga xam ne mooy njistal ak sos kon ñu ngi teg yonent bi ci manhaj maanaa yoon wi nga xam ne ku ci soobu sooboo ni ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sooboo woon fokk rek ay résultat dal di am fokk rek ay jeexantal dal di am moo xam jeexantal yu ñuy teg bët ci aduna la wala jeexantal yi ñuy gis ci àllaaxira benn bu ci nekk ay jeexantal la yoo xam ne yu ama am solo ñu tegal ko ci war rujza fahd ar rujuz mooy assanam mu ne lépp loo xam ne moo jëm ci xërëm mu ne loolu moom fahjur nanga ko gàddaay bul jëm ca loola lu mu mun a doon nag moo xam xërëm bu am xel la wala bu ko amul moo xam bu dund la wala bu dundul waaye lu mu mun a doon rek lu jëm ci wàllu xërëm maanaa lu lay digal di la tere te du borom bi subhaanahu wa taala mu ne loolu moom gàddaay ko ndaxte day nekk taaxuut ndaxte liñ ko jox lu dëgër la moo tax fokk ñu waajal ko ngir mu mun koo yenu moo taxoon borom bi waxoon na ko ne inna sanulqi alayka qawlan thaqila ah maa ngi la bugg a yen nag wax ju diis kon loolu dafa laaj waajal dafa laaj tàggatu kon ci tàggat boobu lay tàggat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak këpp ku bugg a sóobu ci yoonam mu ne ko walaa tamnun tastakthir mu ne ngellawaay yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul di joxe ngir jot la gën am na joxe boo xam ne joxe meep la ñi nga xam ne ñooy napp jën yi def ko ci onze ñam ba nga fay def ngir dugal ko ci biir du yéene ko jën wa waaye dangaa bëgg amaat lu ëpp ñam woowa loolu nag la ñu tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul joxe mukk fekk li ci sa yéene lii di dem na lonkaale leneen mu ñëw ndax mu bari wala tam nun bul joxe tastaksir ngir amaat lu ëpp la nga joxe woon kon nag soxna yi ci anam googu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax rawatina yooyee ñu xewal ci seen xew yi lu xaraam la nga xam ne loo ko jox day bind boo xewlee mu jox la la ko ëpp kon yooyu day bokk na ca lañu tere woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte ci xelaat la waxatuma na lu ñu fésal loolu nag mu ne ko boo buggee mucc ci loolu nag wali rabbika fasbir na nga muñ ci sa borom boo muñee ci sa borom rek jeex na dootoo am benn jafe-jafe loo taxoon borom bi waxoon nañu ne day moom dafa ànd ak ñi muñ inna allaha ma assabirin lim na yu baree bari ku def nangam ku def nangam ku def nangam loolu ay yiw la mu ne ah waaye nag liw yiw yooyu du noonu de wama yulaqaaha illa alladina sabaru mu ne ah loolu moom ki mun a dajeeg moom rek mooy koo xam ne muñ